waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñi ñuy seetaan à travers Nite TV Nite FM donc tey ñu ngi waat fii ci centre taxu askan bi mise en place par l'association Africa Nite Family et l'ONG Africa Camina depuis Espagne donc maa ngi fii tey ak sama grand frère muy le professeur Amadou Sow Badji ku nga xam-xam ne c'est un grand sportif loolu mooy dem na loolu la bokk na ci li mu jàng fi mu li mu am ay diplôme tey nag mu ñëw ànd ak suma entraîneurs yi notamment les Fallou Kalidou Eh, le coach officiel Daouda Sam and ak ci académie xalé pour nous mëna def une formation en renforcement de capacité mais lu jëm ci walu physique renforcement de capacité et préparation physique c'était dédié aux entraîneurs mais bon dañ ci l'Académie walé académie bi rek ñu suivre walé and ak seeni kilifa seeni njir pour ñu mëna def euh atelier sur ce aussi nous ngi remercier euh, le professeur Amadou Sow Badji ci déplacement bi mu def xam nga ak euh, lu mu fassiyene ñew partager ak yeen xam-xam bi nga xamantene fu bari ci Sénégal jaar na fa ak mom jaar ci lycée yu mag jaar ci icm tay mu ñew nak ak yeen en tant que aussi un euh, une personne qui travaille au conseil départemental de Keur le conseil départemental bi ñu nak ñom signé une convention de partenariat ñu ñi di représenter Africa Camina ps1 donc pour gëna a rataxal diggante bi pour gëna défar aussi digënté bi jàppale jàppalante suñu biir ñu né tay ci 8 mars bi nañu nañu def li mu nekk lo xamante aussi ce sera une bonne chose pour les populations de Keur Massar donc euh, monsieur Badji ma lay jox cadeau bi nga sand ci. voilà merci beaucoup euh, monsieur Shingo ma ngi leen di remercier bu baax a baax ci occasion bi ngeen ma jox di remercier également les coachs. ki nekk nii sama wet muy Fallou di sama frère am Daouda coach Khalidou yéen ñëpp maa ngi leen di remercier di remercier réalisateur bi commando di remercier la bu baax a baax tamit euh, tous les élèves et toutes les élèves de l'académie su ma la li ma njëkk euh, frappé mooy ba ma dugg see gis centre taxawu askan wi donc bu ñu nee dañuy taxawu askan bi rek

ngir Kër Massar ndax fii lañu am hmm. te tamit damay remercier surtout kii di Shingo ak commando fii nga xamante ne tey moom la ñu bëgg a jëmale askan bi surtout ci wàllum développement le développement personnel loolu lañ ne di nekk di defar donc dinaa profité ci occasion bi également comme ni mu ko waxee euh, man dama yor casquette yu bëri je suis un produit du sport ce sport laa jóge suis un professeur d'éducation physique sortant de l'INSEP, sport rek ensuite ma suis ci administration d'abord scolaire nekkoon censeur d'un établissement beaucoup de lycées jaar naa terminer dans l'administration territoriale au niveau du conseil départemental donc toujours ma ngi nek ci yoon pour servir le Sénégal donc occasion yi bu amé dama saisir avec plénitude avec plaisir ma ñëw joxe ci sama xam-xam am ngeen occasion boo xamante ne defal vous ko muy gens ay nit may il des champions de Ngour, former ay coach de haute facture donc Li bu a rek santé leen ko là Et renforcer ce parcours de par l'expérience ak de par aussi l'expertise bi nga xam mom ngeen di am donc remercier len bu baax a baax initiative bi nga xamantene ñu ngi koy def pour ndaw yi askan bi tek ci di ngeen ci gagner lu bari bari pour sen carrière ma ngi len di remercier euh, di yemale fu mu toll nii kàddu yi nii fii nii te wax dëgg yalla di waajal dugg ci dans le vif du sujet merci beaucoup monsieur Daara amala doole wa donc ñi ngi ñi ngi remercier président Cissé depuis Espagne ak suñu partenaire yi ñi di jappalé muy la mairie de Burgos et OE marketing ak Amicos donc sur ce ñu tambalé affaire bi ñu bàyyi le professeur malen ñaan nak ngeen télu bu baaxa baax kaddu yi ah jërëjëf merci grand ñu déggoo lég lég te dafa bokku ci li ñuy gis ci qualité physique nit ensuite ñu ñëw maîtrise de la force amna ño xamanteni ñak doole motax duñu mëna def yenn action yi da ngay daw si nga nar a xëccoo ak bal le un contre un nga daw pour bal la de nga jàll fële mu jël bal bi dem ci yi ngay dem daxanu di bal donc c'est un problème de force Et loolu dafa bokk capacité physique dafa bokk ci li la préparation physique générale ensuite ñu ñëw ci l'alimentation le bu baax loolu wax en français diététique ci tubaab lekk ju baax dafa am solo nit sportif du n'importe comment nga avons a lekkee du lu ñëw rek nga dóor du am c'est ju sell ci sa yaram du loo gis rek nga du lekk bu romb rek nga loolu une alimentation indisciplinée lekk ju baaxul l'alimentation indisciplinée l'alimentation doit être disciplinée donc nga corriger nga xam ni ngay lekke lekk ju bu baax te bon malheureusement ñun fii moyen ñoo amul rek mais en principe minimum sportif bu nekk par jour da nga war a lekk cinq fruits yombut nag mais c'est ce qui est recommandé c'est pour qu'il y ait de la vitamine C la vitamine C elle est journalière dans l'organisme donc loolu mooy permettre nit di lekk minimum cinq fruits par jour mais boo leen ko amul sax comprendre ngeen ngeen dugub bi baax na fonde bi bu leen ko xeeb cere bi bu leen ko xeeb dugub bu baax dugub bi moo baax bu leen ko bu leen ko xeeb yooyu noonu bu leen ko xeeb orange bi boo rombee jënd nga lekk mat boo amee xaalis nga jënd orange fruit fruit saisonnière maanaam présentement lan moo am ci marché bi comme fruit lan moo gën a bëri ah lan mango heure bi mango bëri na non heure bi orange boo ëpp Faut leen romb orange jënd leen match parce que c'est de la vitamine C vitamine la mango bu jotee ngeen dóor xaal bu jotee man du ma lekk xaal baaxul si sportif sportif fruit yëpp lay lekk vous avez compris parce que dafa am lu ñuy wax ay apport nutritionnel loolu c'est plus scientifique mënoon naa fa dugg mais dama leen di chambouler un tout petit peu parce que dafa am loo xamante ne sportif muscle yi da koy soxla ay apport la nous la source préférentielle des muscles il s'agit de l'ATP adénosine triphosphate mais faut di compliqué nañ ko fait feu. comprendre nga ñu ñëw ci lu terre à terre donc nous avons le lu baax bu ñu Nous ci la récupération attention sportif vous dul récupérer le yow Yo, teel a tëdd boo nga jug dem entraînement comprendre nga dem ba xoolal booy dox sax sa bët yi day lëndëm doo gis bu baax comprendre nga bëgg a def nga bëgg a def carrière du jàll sportif da ngay teel a tëdd am hygiène de vie loolu dafa bokk ci hygiène de vie da ngay teel a tëdd di récupérer sieste bu jotee boo demee par exemple le matin nga sport ba sonn boo ñibbisee nga dallu def benn sieste de 30 minutes wax ñu nga nelaw mais sieste allongé tout le corps même bëggoo nelaw parce que nous bari dañu yaakaar ni sieste pour dem nelaw la non non non non non non non sieste même gëmmantuwuloo da ngay dem nga allonger le corps nga teud récupérer 15 minutes 30 minutes 20 minutes maximum une heure de temps tu allonges tout le corps manam muscle yi ngay replacer parce que da nga déranger muscles yi toute la journée maintenant tu viens t'allonger pour replacer les muscles Do am solo la récupération ku dul récupérer doo am performance vous avez bien compris ensuite ñu avons la prévention des blessures attention nous bëri du def carrière bu nous ndax day bëri dañuy nous lu ñuy gaañ joueur sportif vous êtes des filles pratiquement sportives Vous gisee nous avons ñuy traîner ay blessures di gaañu c'est parce que c'est parce que de nous gérer seen bopp yow chaque match nga gagne, chaque match nga gagne, bu yàggee Do dem bu yàggee dem il faut éviter les blessures to len di Il lu bari Ñen sam c'est un comprendre ngeen pour éviter ces blessures là il faut une très bonne préparation physique articulation est day door degrés, normal articulation est souple flexible nga am muscle yu tonifier, yu tonifié yu dëgër muscle yu dëgër nga am hygiène de vie qui est normale. bu normal l'augmentation de l'intensité faire face aux difficultés psychologiques l'augmentation de l'intensité gis nga nous la méthode de l'entraînement entraînement dafa am ñaari forme ñaari forme c'est biir entraînement mom lañuy xolé dañuy né volume volume moyen, une heure de temps d'entraînement, exemple moy volume d'entraînement. Il ñi def 30 minutes ñi def une heure de temps ñi def deux heures de temps ça dépend lolu volume d'entraînement. intensité dafa am volume et intensité intensité moy manam fréquence bi ngay def ci sport soit mu gaaw wala mu mu wàññeeku mu yéex loolooy intensité ci une heure de temps bu may entraîné entraînement bu gaaw lay doon wala entraînement bu yem wala entraînement bu yéex léegi mu gaaw mu yem wala mu yéex c'est ça qu'on appelle l'intensité volume d'entraînement mooy damay dem entraîner tey 30 minutes nga xëy nga ne bon tey 30 minutes laay dem entraîner loolu mooy volume intensité mooy bu gaaw bi wala bu yem bi wala bu yéex bi c'est compris C'est clair Donc, par rapport à la préparation physique générale, il y a les 10 étapes de la préparation physique générale. Il faudra que vous Nous, nous, comment faire une bonne préparation physique C'est important. Pour obtenir une bonne condition physique, il faut d'abord penser au renforcement de son système cardiovasculaire. Hey. Nous, nous sa bopp te amoo xol bu baax moo tax ñu ne la système cardiovasculaire lan mooy defar xol kan moo ma mën a wax lan mooy defar xol bu baax lan mooy xol seen xol yi fan la nekk ah fan bu leen ragal il faut parler loolu mooy neexal cours bi allez seen xol yi fan la nekk kan moo wax à gauche fële nan la tudd c'est comment Khadija élève lève la main très bien Khadija Le cœur se situe à Très bien. À gauche. donc sen loxo xol yi tu xol. Adija voilà c'est bon ak kan a ngi kan sentir sentir ko bu très bien tu ñu ne xol bobu dañ koy defar dama leen di wax lan moy secret am na ñu bëri tey dañuy dugg ci terrain daw tuuti commencé football rek ñu daanu këlëb ñu yóbbu leen hôpital xam nga lu waral lu ah seen xol yi baaxul si walla nga jékki-jékki commencé daw daw daw nga mel ni kuy fat taxool arrêté nga dem xooli ji yow sa xol parce que xol mooy mooy lan mooy moteuru nit bu arrêté yow fay jëm. comment faire une bonne préparation physique une bonne préparation physique renforcement Nous ne renforcer quoi le système cardiovasculaire da renforcer le système cardiovasculaire foo leen déggee cardio cardiaque le cœur xol le myocarde tu renforces le système cardiovasculaire xol bobu boko renforcer le. la nan lañuy renforcer xol comment on renforce le système cardiovasculaire nan kan moko xam mooy ban exercice ngay def pour renforcer ko ban exercice physique Hein? da ngay dox Hein? kon wax len mo ban exercice la yenn